ginnaaw bu ñu amalee lancement campagne vaccination ñeel Covid 19 te ñu tàmbale ko talaate bi ñu weesu ci bërëbu ministère de la santé fii ci Hann bel nag mbir ma tàmbali na fa foofu ci centre de santé bu Hann Mariste ak njiitu commune ba di Babacar Mbengue mi wone exemple ndax moom la ñu njëkk a ñàkk ba pare di ñaax askanu Hann gi yépp ñu matale vaccination bi ngir ñu gën a mën a xeex ak dakkal lawal jàngoro ji di coronavirus mi nga xamante ne mu ngi faat bakkan yu bari je pense que tay li ngeen gis nii dafay loo xamante ne euh, mom la ñëpp doon effectivement parce que solution clinique la Covid 19 ce nga nous mom fait à ce jour c'est le vaccin donc di remercier bu l'État du Sénégal quand je dis l'État du Sénégal d'abord le président de la République di remercier tout le personnel médical qui a été depuis plus de 14 mois amul kenn ci ñom ku newal alors si vous man effectivement j'ai reçu ma dose de vaccin ce n'est pas parce que en fait euh, nous, on est prioritaire d'abord en tant que maire donc euh, l'élu des populations représentant des populations je dois toujours donner le bon exemple donc de pour que nit ñi ne que n'y a que piqûre le vaccin bi solution donc je veux inciter les populations à ce que nous vaccinions. La bi première mesure bi le ministère de la santé djel dans le protocole moy d'abord le personnel médical le personnel médical parce que que ça fait plus de 14 mois ils sont sur le terrain du lundi au dimanche les médecins yi tous tout le personnel ñom parce qu'ils sont exposés ku feebar fi ngay ñëw mais bo fi ñëwee boobu vaccin amul et ñom ñëpp mon naa nonu noonu leen feebar bi duggee donc tey boo leen gisee au Sénégal fépp foo dem ci Sénégal dans toutes les régions tout le personnel médical jot nañu seen dose et commencé nañ di leen vacciner la deuxième étape effectivement mooy euh, ñi nga xam ne mag ñi le personnel mooy population yi nga xam ne ñoom nañ ko jagleel parce que ki nga xam ne fa ngay dem di faju Waro fa dem bëgg donc aujourd'hui ils sont mis à l'écart donc dans trois semaines le personnel médical danañ dellu si waat pour deuxième dose parce que vaccin bi c'est en deux doses léegi li ñuy demander aux populations mooy ñu en ligne am site boo xamante ku demander aux populations à ce que ñu dem ñi nga accès xam nañu bind lire ñu dem inscrire sen bop joxe information yi site bi dana réagir bu féké né amna sax feebar yo xamante da nga diabète wala nga am hypertension nga intégrer ko ci bir information yi ñu lay laaj di nga gis né que le ministère dana revenir vers yéen pour orienter leen vers les services yi nga xamné ñom ñoom ñoo di jël en charge mais li nga xamné mo gëna rassurant ministre bi wax ko moy inshallah d'ici fin 2022 population sénégalaise tout ku ci nekk être vacciner donc l'organisation lorganisation organisation c'est le personnel de santé Nous, on a besoin de rassurer les populations parce que nous lui aussi une population yi jiitalee il faut que nous nous won leen rassurer leen ci la nga xam ne vaccin est jël nañ et que aujourd'hui ça demeure la solution donc ñi ngi demander bépp doomu Sénégal man particulièrement di demander képp koo xamante ne dëkk nga fii ci commune Hann à ce que nga dem ci site bi inscrire et di ngeen gis ne que di ngeen am retour buy orienter, fan ngeen di dem pour def seen vaccin et euh, ñaan yàlla aussi que programme bi ni muy déroulé mu nekk une réussite pour tout le monde. alors premier acte bi nga xam ne moom nañu def tey man bi ma ko bi may wax ak docteur Diakhaté mun naa ne y a moins de trois heures premier réflexe moi, informer sama le bureau municipal y compris la presse locale en termes de sensibilisation parce que Barina, domo adama, aadama je vaccin bi waruñu ko jël waruñu ko mais li nga xam ne moom lañ statistique c'est des centaines de millions de citoyens de tous bords américains, israéliens, euh, sud africains qui ont été vacciné et qui ont gis en tout cas que amul de problème donc ce wax dëgg yàlla bu fekkone ne dafa njëkkee woon ci ñun sax mënoon des ne ah ñun de ay aussi et nous ñu dit boo demee dëkk bu mel les États-Unis ils sont à plus de 65 millions de vaccinés te amul benn problème nga dem en Europe non... donc je pense qu'aujourd'hui... aujourd'hui li moy comme vaccin bi moo fi nek nañ ci japp mais limay wax moy vaccin bi ñëw na nañ ci japp mais nañuy bàyyi xel sur les mesures barrières parce que tant que ñëpp vacciné wuñu virus bi day continuer di circuler té dañu nek ci ben combat ci riposte bo xamantane liñu bëgg moy véritablement en tout cas à ce que mo am un recul des cas de Covid-19 fi ci biir Sénégal nañ japp ne que tay c'est le coup d'envoi nous avons déjà euh, des notes d'information adressées à toutes les organisations communautaires dans la commune Nous avons en tout cas à la presse locale à ce que comme nous avons fait toujours vous avez toujours répondu présente volontairement accompagnez-nous dans cette sensibilisation mais véritablement à ce que la population ait conscience que la solution le vaccin demeure la solution vaccin moins solution la Covid-19 partout dans le monde c'est-à-dire que dafa am donne bu bes bu ñew moy vaccin vaccin bu mu ñewulé dañ daan insister sur le comportement comportement sanitaire les gestes barrières on insiste mais bu ñu yalla jàppalee fi ba décembre li ci dess barétul à ce que tous les sénégalais soient vaccinés nañu dem du ñu fekk nit nak sa biir kër ne la dañ lay piquer. dañoo bëgg en tout cas li nga xamné moy engagement personnel de chaque citoyen ku ci que na nga yittewoo lii du yomba ñëpp mënuñu jugandoo mais liñ ci jublu mooy que nit ci mën a signalé à travers inscription de la ko wax ci plateforme bi nga xam ça a été mise à la disposition des populations